L'Union nationale des acteurs de la l'APS section Tiaroy-sur-Mer est d'avis avec le chef de l'État pour le du, du secteur de la pêche, surtout revoir également les licences de pêche attribuées aux bateaux étrangers. À l'heure actuelle, euh, ñu di rafetlu publication bi nga xam ne ni tey. on magnifie vraiment la publication de la liste des bateaux de pêche mais on exhorte surtout au gouvernement de poursuivre l'audit du secteur de la pêche nous sommes derrière l'État du Sénégal et on va l'accompagner. loo xam ne ni ay étranger la moo xam ay chinois la mooy ñi nga xam ne dañ la def ay bateau prête-nom ak accord de pêche Sénégal ak Union européenne nañu ko gën a nañu ko gën a tengal ba nga xamee ne euh, lool bu fi jógee yàlla mën naa dogal. Euh, géej gi mën a noyyiwaat. Les pêcheurs de Thiaroye demandent également aux autorités d'augmenter les amendes des bateaux étrangers en cas d'infraction. Président Diomaye Nous demandons que le gouvernement augmente les amendes sur les bateaux. 100 millions mais bateau mënul def infraction nga koy amende xam nga trente millions loolu moom xam nga dafa tuuti Ainsi, pour les réformes sur le secteur de la pêche, ces derniers demandent de les associer aux discussions. Nous voulons être associés aux discussions concernant la pêche artisanale. parce que ku ëpp sa morom duma loolu moom vraiment war nañ ko xoolaat. Pendant ce temps, depuis la publication des listes des bateaux autorisés à pêcher au Sénégal, les discussions se poursuivent du côté des autorités afin de stabiliser le secteur.